est-ce que dégg nga wolof yi. Ablaye ma fàttali la benn affaire. Ah. billaahi wallaahi wataalaahi mm-hmm. barke alxuraanu karim dama laa piégé. <laughs> dëgg la Ablaye yaa ngi jinne ji nga ma wanoon. waaw ah, dëgg lii may dund nii tey. <laughs> mu wax ma ko. barke alxuraanu karim dëgg la. barke alxuraanu karim yow fàtte nga loolu. fàtte naa ko def barke alxuraan léegi lañ sama xel dem dëgg la. du jigéen. dëgg la dëgg la mu tuddal ma ay tur. lii may dund tey nii mu wax ma ko. wallaay dëgg la dëgg la dëgg la. barke alxuraanu karim barke alxuraanu karim maa mais sur le coran. ndeysaan boo indee alxuraan ma waat ko dëgg la dëgg la. man Ablaye. dundaloo ma. dëgg la woddoo ma sangoo ma rek la woo sama problème. te lii nii lii nii ma créé nii bugguma ci créé loo xamante ne nii tey sénégalais dañ naan Lamine Samba day fen loolu noonu ma koy wax deux ans te li may dund tey nii wax na ma ko yàlla mi ñu tiim sama xel ci door a jëm ku dee ak sa bàmmeel xam nga Lamine man da yow mu ne ma mhm. Mhm. jox ma dëgg la nga yëkkati yow di joxe mu ne déedéet moom na ma jox moom ma tekki sama ñaari montre jox ko ko barke alxuraan dëgg la mu mu limal ma ay nit ci fi may liggéeyee ne ma diw ak diw ak diw ak diw di nga am ak ñoon problème loolu yàgg na jóge loolu yàgg na ma nga amee woon parcelle billaahi lazi laa barke salaatul faatiha loolu dëgg la léegi la sama xel dem la barke alxuraan dëgg la léegi la ci sama xel dem léegi léegi léegi kon man buñ ma nee Ablaye Diop mooy borom jinne yi ma ko waa xam nga Lamine bi su ma toogee ni la am naa ñaari jinne ñaar ab xaas xamul lu tax gis nga lu mag sa maamaati ma mm-hmm. xam ne ñëwee nii ni muy ñëwee rek maara day taali mm-hmm. ku jinne ñëw ba dem boo fekkee mu ngay onk mi ngi onk Lamine loolu ma ci bëggee am junni junni fu ma jëm Lamine benn kàddu boo xam ne bu ko tegee fi mooy raw magnétophone boo tijj te yow muñ bëgg nga dégg ko rek yaa koy dégg hmm. lamin mag ñu bari seen noppi dañoo tëkkoon ngir ñi daan wax ak jinne bari liñ daan communiqué hmm. parce que liñ daan dégg ci ñoom dafa dem ba dafa jéggi dayo hmm. boo xoolee dañuy jékki-jékki sax soppeeku wala ñu jékki-jékki naqari direct parce que affaire parce que jinne bu demee ba ba boof ci yow dëgg-dëgg daf lay contrôle Mm-hmm. mais bu ñu nee diw borom jinne yi du lu rëy parce que sa soxna wala soxna keneen wala soxna keneen rab daf koy jàpp rab boo ko jàpp daanaka lan la nit dof bii di taxawaal jinne da koo dugg kon bu ko neexee mu ne maay borom jinne yi. Mm. da nga am ay jinne. waaw bu fa lay waxee ñaata non ñaata non non non non Ablaye dama bëgg nga wax ma parce que tey boo waxee ne gars yi tey. waaw su ma nee am naa ñaar damay dama lay na am boo xam ne bu ma ko ma la. waaw moo tax man la mën na am boo xam ni pourtant cax naa ko de su ma xool c'est la première fois sax ma toog ñu ci yàlla mi ñu teew xam na ko. Mm-hmm. ma ak man moom wax force. waaw waaw moo tax yow. parce que dama dund ak yow. ak da maa xoj sax. dama dund ak yow da nga maa bi ci miir.